Mangga ko moom. Ibrahima mi yaa ko moom. Ibrahima mi yaa ko moom. Ibrahima mi yaay borom. Jëmm góor la moo ko daal. nangu nan waaye bii de sàkku naa mooy ku tekki kii

ga màgg na alxamdu sant nan maam ju njëm ya agsi na nangu nan li yàlla def alhamdulillah nangu nan li yàlla def. alhamdulilah. nangu nan li yàlla def. Alhamdulillah, nangu nan li yàlla def. alhamdulilah. nangu nan li yàlla def. alhamdulilah. maam gaayam ya barina, na waaye xolam ba murtada fay doom ba tàkk na tuuram ba jolli na ndax waayam ja màgg na la ca maam sa la ca sa tëkk waaye sët bu taxaw lool waaye sët bu farlu lool jëm yi ay borom sunu doom yi ay borom ñun bëgg nan la murtada da cofeeli sori Genu genn nga murtada mam gaayam ya baari nan ndax moom yërmande la xolam ba murtada Allah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 la jamaa sa takkay gën